man maa ngi tudd Ousseynou Samb euh, chargé à l'organisation Horizon 2019 euh, di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di sant ñëpp di gërëm Horizon 2019 nag dafa am loo xam ne daf koo muy le 24 février mu am benn forum boo xam dañ ko war mu jënd sur les réalisations du président Macky Sall maanaam PSE ak ban impact la am fii biir Thiès ñu koy defee fële ca centre de commerce horizon 2019 moom dafa jóg doon ay ndaw doon ay ndaw yoo xam ne dañoo nekk ci parti bi yàgg ci parti bi di toog aussi di seetlu am toujours benn ñàngat boo xam ne dañ koy am parce que ci biir politique boo ci nekkee dafay jaadu lépp loo xam ne xew na rek nga am jàngat boo xam ne di ko ca am affaire bi tamit bi mu amee ñun dañuy toog saa di ci wax di ci waxtaan di ci échanger bu ko defee ñun toujours rek dara lu ñu bett mbir mi nag bi mu xew bii li xew fi biir cees kenn ku ne ci ñun am nga ci sa xalaat parce que boo dee xool euh, coordination bi fi jógee te ki nga ki nga xam ne moom mooy jiitee les valeurs républicaines ñu koy wax euh, le monsieur euh, ministre Thierno Alassane Sall bi mu fi nekkee Thierno Alassane Macky Sall moo ko fi teg ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam liggéey kon bii tamit bu fekkente ni sentir na ne ay pëccoo xam am di way jiite di jiite détails yooyu xëy na duñ ci dugg te ci ko gis nañ ni ki nga xam ne moo tànnoon Thierno Alassane Sall mi ngi fi ba tey jógewu fi muy le président Macky Sall di saytu li nga xam ne moom moo jëm lépp lu jëm ci wàllu coordination ñun nag ay ndaw la ñu ngi déglu le président Macky Sall képp koo xam ni teg na ko fi ñun ñu xool nan lañ ci àndee ak moom bu fekkente ne nag gis nañ nit kii base bi ànd na ci pour ñu teg ko fi ndax lu ci mënti xew aussi tamit il faut que mu déglu base bi parce que am na ñoo xam ne ñooy wàcc ci base bi am na ñoo xam ne ñooy ñooy jëflante ak baas bi am na ñoo xam ne ñu ngi déglu jafe-jafe yi base bi kooku boo ko fi tegee horizon 2019 ànd ak moom liggéey ñun daal lenn rek lañ mënta nangu fii ci biir cees parce que ñu dañu jóg ngir fal Macky Sall kenn nag ñu ngi woo bépp responsable politique koo xam ne yaa ngi fii biir Thiès ñu ànd liggéey mais ci biir liggéey bi na ko lal na ko na ko na ko ànd nawlelal parce que boo dee xool APR parti bi loolu la woote ànd nawle la nan fi teg toujours rek koo xam ni dina sentir ni ci dina amal njariñ askan bi mais pour nag def choix ñun kooku duñ ci dugg loolu danga koy bàyyi ki nga xam ne mooy njiitu réew muy le président Macky Sall. yaakaar naa ne <laughs> man li ma li ma wax leer na waaw ñun duñu tudd tur ki nga xam ne moo tànnoon ki fi nekkoon mu ngi fi ba tey képp koo xam ne tànn na ko te horizon 2019 sentir ni kat. kii amal na njariñ askan wi su boobaa ñun dinañ ci ànd ak moom ànd ak moom liggéey ci liggéey bu rafet ci liggéey bu liggéey bu am solo ndax ñun ci la xaaruñu ñun kun tànn ci commune bi ak kun tànnul ñun daal ñu ngi liggéey ngir incha allahu bi le président Macky Sall am deuxième deuxième mandat premier tour ñun ci lool la nekk. képp koo xam ne sax déllu nga band annonce bi nga xam ne moom moo waraloon Sud FM ak yenn rajo yi ci dëkk bi yëpp mouvement de soutien yi kenn ku ne gis na li ñuy liggéey duñ tudd tur ndax waxuñu ku lim juum mais ku lim da ngay fàtte mais mouvement de soutien ñu de toog nañu kilifa te li ñuy wax war naa mat ñetti at ci ginnaaw mu ni de 2019 Macky Sall ci mouvement de soutien yi ci boppam ci la yaakaar ngir am. Euh, premier deuxième mandat premier tour kon ñun bu fekkente dañu cadre de réflexion amul ben mouvement bo xamni da nga te ñun duñ nañ ko nañ ci mouvement de soutien waxtaan ak ni leen ñun ni leen bëgg ñu ñu nous leen suñu loxo ñu nous nako à mouvement de soutien amna solo xana kay day jaadu président Macky Sall mouvement de soutien yi leader responsable politique yi nga xamni

ñun dina ànd ak yow liggéey incha allah rabbi bëgg yàlla may na ko ci kàttanu yàlla ñu daal ci lool lañuy dox ci dañuy liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon ak mbooloo mi nu àndal horizon 2019 day judd na moom la ñu waxoon ca njëlbeen te lu judd lu ne ñaanal yàlla mu dox ami tànk jëm ca kanam euh, ku ni politique ni moyen fii de biir Thiès pour le moment amul benn responsable politique bu mën a taxaw ni def na ci ñaar dërëmam xëy na nag euh, li olof naan euh, jaay laalo fa ñuy jaayee cere ñun ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu nekk ci biir département bi dem nan waxtaan ak moom mu daal di dégg horizon 2019 fait partie de ma famille. moom Augustin Tine. moom Augustin Tine jàppale nañu mbir mi tamit bi mu amee mu tuuti mu néew nee nañu de lii maa leen ko dimbale Omar est-ce que xam nga ne bi ñëw ma de baa kenn ku ne yaa paasal sa bopp ñëw. <laughs> noonu la koy doxalee. bu dee wàllum crédit amuñu denn loo xam dañ koy def ci ak kees gaa ne nag euh, loo gis kuréel goo gis dina am un trésorier mais amul lu ñuy denc ci kees amuñu lu ñuy def dara ñun daal lenn moo na ñor muy bis bi nga xam ne moom lañ jëm muy le 24 mu am une réussite totale am une très forte mobilisation ñu feesal chambre de commerce yëngal incha allah rabi loolu daal lañ bëgg ñun am na nag ñoo xam ne gëm nañ horizon 2019 rendez-vous le 24 nous fa euh, dinañ ne ño horizon 19 nous liggéey ak nous su boba nak euh, mbir mu la kenn ku ne lo ñu ñu koy dal waaw appel ngeen di lancer waaw ñun ñu ngi wo ñu ngi ñu ngi département bi ñu ngi maire yi nga département bi ñu ngi leen kenn ku ci ne di nga invitation ñu ngi responsable politique yi nga xamné responsable politique nak boko waxe amna am na ñoo xam comme ñun sun genre gi peut-être xëy na duñu jàppee seen boobu responsable mais ñi ngi woo képp ko xamni ni yaa le président Macky Sall ñi ngi woo képp ko xamni APR nga bok ñi ngi woo bépp mouvement ñu ngi leen woo incha rabbi su ko défé ñu mëna fessel li nga xamni mo le président Macky Sall def ndax nit ki bo xamul lim da defal ci sa gox do ko mëna a gëm ba di ko parce que ku melni man ma nekk ci biir APR xeyna na gis naa ni Euh, lu mel ni faculté des sciences gis naa ne lu mel ni KMS 3 gis naa lu mel ni AIBD mu nekk à 6 kilomètres de la région de Thiès sànq dama am benn xarit buy tukki jékki-jékki fii la tàggoo léegi ni mi ngi dem bu doon au mu nekk Dakar pour mu dem day metti mi ngi doon di tàggoo di war a tukki kon loolu ñun suñu fierté waa Thiès la AIBD ñun ñoo ko moom man mi xam loolu pour ma wooteel Macky Sall day yomb kon ñun ñu ngi jox rendez-vous ñëpp le 24 bu ko defee man li ma xam Bas xam ko Assane xam ko Jëdane xam ko wala Mooda xam ko bu ko waa Thiès yëpp xamandoo pour Macky Sall gagné fi biir Thiès dina yomb ñun gëm nañ ni war nañoo war a mën a moom Thiès ci la ñuy liggéey ci la ñuy dox jële fi kii fi nekk teg fi lu bees tax ci la ñuy liggéey ñu ngi ñaan nag incha allah rek bis bi kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi woo bépp religion bu religion musulmane ou kenn ku ne defal lu ci ay ñaan ba nga xam ne incha allah au soir la ñuy ñaan